ce qui concerne le secteur de l'électricité, le président de la République a décidé la prise en charge par l'État d'un bimestre de consommation d'électricité pour tous les ménages qui relèvent de la tranche sociale en matière de consommation d'électricité. L'ampleur de la crise, encore une fois, n'est pas connue, sa durée n'est pas encore connue, mais il nous faut dans l'urgence agir pour soulager les plus faibles, soulager les plus vulnérables pour que le tissu social puisse continuer à se renforcer et que dans l'après-Covid, qu'on puisse disposer de l'ensemble des ressources de la nation pour faire face à cette situation post-crise qui va arriver forcément avec des conséquences que nous ne nous aurons pas encore. Donc, le président de la République waxee ak askan bi dafa ne naan crise de métti na te xamaguñu fu mu nous nous nu mu toll waaye seetaan mënul nekk seetaan mënul nekk moo tax mu am benn programme nous mu teg bi nga xam waa secteur de la santé lu tolloo ci juróom benn fukki milliards ma également mu teg beneen programme bu ëpp téeméer milliards bi nga xam ne daf ko jagleel bu muy wax ñu euh, gën di néew di doole mën naa wax ci ci réew mi ñu nekk ci biir réew bi ak ñu nekk ci ci ci biir loolu noonu mu décidé ci nii facture courant yi ak ndox yi ci ñaari weer yi ñu yu jàll yi wala yi ñëw parce que dinaa ci dellu soir léegi leeral ko da koy jéggalu jéggalu bi lu muy tekki day tekki bi moo koy fay ci wàllu courant mu ngi toll ci fukki milliards ak juróom ak benn wàll quinze virgule cinq milliards de francs CFA soo ko xayma ci wàllu courant facture président yi bi moo koy jël fay ko Sénélec fi ko waroon fay clients yooyu nag tey soo ko xaymaa ci fichier Sénélec ñu ngi toll ci juróom-ñeenti téeméer ak nangam juróom-ñeenti téeméer ak juróom fukki juróom-ñeenti téeméeri junni client lay doon ak lu ko ëpp maanaam fukk ñaar fukki ak juróomi junni client moo ko tere mag million client parce que neuf cent cent quinze mille cinq cent vingt deux client la ñaar fukki junni ak juróom client moo ko tere mag mag un million client ñëpp président de la république Macky Sall jël na ndogal ni seen ñaari weeru courant yi mu xam ne facture Senelec par ñaari weer la mel na leen ko jéggal na leen ko état bi dina leen ko fayal donc loolu muy mesure bu mag mesure bu yaatu Senelec moom am ñaari xeetu client am na ñoo xam ne du ñuy fay ba weer bi dee wala ba ñaari weer yi passé du ñuy du ñuy kone ba ñaari weer leen seen facture ñu koy poste paiement nga dem fay sa facture am ñi nga xam ne amatuñu facture mooy ñu nekk ci Woyofal mais ñaari catégorie yooyu yëpp nga xam ne boo ci jël rek daanaka toll na ci cinq cent mille clients ndax ñu ñoom ñoom ñaar ñoo ko séddoo ku ci nekk dina dana am nu nu ngay waxee nu ngay fayee mënuñ lay jàppale pour sa yor bi doo ko mën a yëg loolu Sénégal dina ci dollu si daañu ci def communication bu yaatu suñu si jógee léegi daañu wax def communication bu ñu yaakaar ne rek moo gën pour mën wax ak askan bi mën wax ak euh, client loolu boo wax daal mooy comme président dogal na ko suba suba mesure boobu commencé mun ko tey si suba commencé mun ko appliqué mu tekki ni ñi nga xam ne fayaguñu bu ñuy dugg ci loolu mu daal leen du ñu fay ñi ne ñoom fay nañ ba lu mu waroon lu leen waroon di gàddu daa ko jox mu doon azar bi nga xam dafay nekk seen facture bii suy ñëw mu génne ko ci donc noonu la ñu décidé defale ko détails yi ci war a am yëpp Senelec ko wax dañuy bala mu dina am quelques questions yu ñuy tontu mais étant entendu que lépp luy ci facturation beeg nu mu koy bu ñu bàyyi Senelec après dina dellu si ak yéen ci ci loolu ci lu a yaatu. dinañ ko a ngi

jikko mucc te ku def lii tey dañ lay bëgg ñu dénk lu loo te tey ñu parce que bu ñu ko parce que boobu ñu ci bokk mooy ñu nekkoon ci première tranche bi rek ñooñu état bi charge ñu bokk ñu ci ajustement tarifaire mais bi bi ñu am bu ñu bi moo tax ñu àgg ci la kwanza mashamba muhimu kamwe sana la donate dollars lego lego dafite ko nyine ko lego wala fitin wake ni bana ko dalati dafite ko zira da plus an dafite ko da hotel explain ko sana da ne kuma zo da ansa da da an tarin ta askan bi ban ko mu wala ko mu yaki ko ko tamban ko

tudo que não deve diminuir, tem uma referência que deve você dar no patrimônio, e sabe que o patrimônio tem que mexer no nosso sistema informático, por outro lado, agora não aplica o que é. Não é uma boa ideia, mas é efetivamente a decoração do presidente da República.